bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashraf alambiyai walmursalin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani waltamkin ixwaani fi llah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñi ngi nuyu kilifa yu tedd yi yi fi teew yépp di jiital nuyoo ak ziyaar sunu sang bu tedd bi sayidi muhammadinil muntaqa xafizahu llahu wa raah wa amaddahu bi ruuhin minhu wa jamihi ixwaanihi min ahli lbeyt alxadimi wa jamihi almuridin di ziyaar waa daairatu muqaddimatul xidma di leen sant ci seen taxawaay yu am solo yii ñuy def ci liggéeyal sëriñ bi ci fi sëriñ bi gën a bëgg muy jumaa ci li sëriñ bi gën a bëgg muy julli ci ñi sëñ bi gën a bëgg mooy njabootab gi ak taalibe bi kon tawfiq ndimbal ak jagle gu leen yàlla defal la ngeen jagoo liggéey bi gën a màgg gën a kawe mooy al xidmatul janaab al xadimi asna al xadim bi martada fa innani aqdimuhu bi Mustafa yaakaar naa lii nag ci bi Mustafa la di nuyu waa daayira bépp ak ñi ci dale ko ca njiit la ak ñi ciy liggéey ñëpp waaye tomb bii ñu jël di ko waxtaane dafa am solo lool ndax lépp luñ fi waxtaane rek te muy yee nit di ko jàngal di ko xamal diine am na solo waaye nag seet liggéeyub sëriñ Touba waar wi mu tobbi ci lislaam doon ko def ñu jël ko di ci waxtaane loolu mooy waxtaane sëriñ Touba mooy waxtaane lislaam mooy waxtaane yoonu murid ndax xidma day baat bu am wàccuwaay ci njàngalem sëriñ bi ak doxiinu sëriñ bi sëriñ bi bañ naa ba moom mooy xadimu rasulillah mooy liggéeykatu yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon xidma wane na maqaamam sëriñ bi xidma wane na yoonu sëriñ bi ñaar yooyu alxidmatu manhaj walakin alxidma aydan maqaam am maqaam la boo ñu delloo ci maqaam la boo xamee ne gaa yi yàlla yi fi jiitu yoon yépp xemmee moon nañ ko bëggoon ko waaye kenn mënu koo am yàlla kenn la ko jagleel muy Sëriñ Tuubaa boo delloo ci téere bu maam sëriñ sill bi am na foofu sëriñ bi wax naa ne yàlla may na ma loo xam ne mësu koo may te dootu ko may kenn loolu la muy leeral bu noppee da nga xam ne loolu mooy xidma maqaamul xidma nee na yàlla moo dajale ay soppeem ci azal booba yàlla bindut yaram yi adduna dara amut ruux yi rekk ñoom yàlla tànn ca soppeem ya ña ña ko gën ña ca gën a kawe génne mbóot mu rëy mu kenn xamut lu mu doon teg ko fu kawe kenn munta xam loola lu mu doon di xuy di dem ak a ñëw mu wax leen ne ku may indil lee boo ko defee danaa la defal loo xamee ne kenn mësu koo am te kenn dootu ko amati maam sëriñ si li nee na sëriñ Tuubaa nee na ba borom bi waxee loolee ñépp soppe yi borom bi ak xejjam ya ak kàngam yu kawe ya ca aalamul arwa kenn ñépp ñi may wute yëkkati sa kàddu ngir xam ne maqaama bii wala mbóot mii lu rëy la lu jomb lu diis lu kenn attanu moo tax kenn jéemuta sax jug di ko xalaat wala di ca xeme ne sëriñ bi ne kenn ca biir mbooloo moomee bëgg gum bëgg yàlla waaye du xemmeem ab maqaama wala xemmeem dara waaye bëgg gum bëgg yàlla te xam ne yàlla bu waxee rek ne bëgg na koo jox kenn kon am na ku ko war a moom ba noppi te bañ kàddoom gi naax saay bëgg googu ko jaral waaye du maqaama ba sax moo xubban fi daatil mulki la wax fi daatil maliki laa fi al maqaam loolu samay wax la waaye xubban fi daatil maliki loolu loolu man ke bind ma mu tax mu jug ne ko man dey danaa la ko indil te nang ko bëggee wa inni alayhi la qawiyun amin la Seydina Musa waxoon ne man danaa lii nga bëgg da danaa fexe ba mu am danaa fexe ba amal la ko ca nanga ko bëggee te lépp luy waral ma wan koo sottal mi ngi ci man mooy la qawiyun amin am naa kàttan gi am naa kóolute gi mu ne borom bi dee dee yàlla dee yàlla dee dee daalantaleeg moom maanaam li ñuy wax ci bu doon ci tubaab def ak moom contrat daalante ahada fasanteeg moom kóllëre ci dara ne ko kon ndeem yaa wax ne man nga ma koo indil kon yow laa koy jox ci sart yii nag ci anam gii te sart ci bu ci ne wali yu ya gën a kawe attanuñ ko kuñ ko teg nga daw mu sartanteeg moom mu ne ko dellool bu waxtu wa jotee ba yàlla bind monde bii ñu nekk adduna bii ba lay am am ba waxtoom jot ba nga ñëw ba yàlla bind tubaab bi ba mu war la fee jëlee kon waxtoom jot na tubaab bi ñooñu nga ko war a àndal liggéey boobu loolu sëñ bi nee na boroomam wax ko ay mandarga yoo xam ne bu jotee dana xam ne waxtu wa jot na war naa jug def liggéey boobee nee na ba waxtu wa jotee laataa ñu koy wax ne jot na rek xam na moom xamal na ko boppam bañ ba mu gisee ki yor kayit wa jug wut si ko la xam ne liy jot am na sëñ bi ci la wax ne na ca laa jaaye sama bakkan sama alal sama njaboot lépp bàyyi leen ngir liggéeyali yonte bi alayhi salaatu wasalaam kon foofu baat boobu mu wax ne ci laa bàyyi leen lépp ngir kon mooy wane ne liggéey bi liggéey boobu mu doon liggéey yonte bi salaam mooy maqaama boobu dem tumburaanke ji xusuuri xalat wal ahlu anni tafarraqat ñu tas samay kër teqale samay taalibe sànq ma génn ma réew mi ngir ma mën a taxawal ci liggéey boobu muy xidma bi ba mën a am maqaama moom ci noonu nee na laa demee nekk ci géej gi di fa liggéey samaaniya hijajin illa qalilan muy juróom ñetti at yow manqué tuuti ci noonu laa def ba liggéey ba sotti ba mu matee nag ci lépp lu ma war a jaamoo yàlla ci tur yépp yàlla feeñu na ma fa ma nekk fa abdul rauf abdul muntaqim abdul jabbar abdu ba tur yàlla yépp ci nattu yépp fu ne yàlla feeñu na ma fa ba ma xam yàlla ci tur wu ne xam yàlla waaye nga nekk mazharul ismi doon abdul ismi dëgg-dëgg bokkut ak xam ko rek ci am mbind waaye bu dee nattukan sëñ Tuba abdu ba ko yàlla nattoo lam dacca natt ba ba xam la ca nekk lépp boobaa la nekk abdu aji nattoo waaye du ci tur woowu rek ci tur yépp nag la ko feeñu ba liggéey bi mat sëkk nuu di nee na nag boobaa la ko yàlla feeñu ci turam wu mag wi ne ko inniya anallahu sa liggéey ban na ndax feeñu naa la ci tur wu ne nga nga doon su gor man naa laa defal xéewal nga beew waaye beewoo ma def la nattu nga saalit te saalitoo ma defal la ci tur wu ne la ca neex nga gis nangu la ca naqar yi nga matale ko kon matal nga tur yépp nag benn tur moo la dese nga nekk jaamam jaam abdullahi ma feeñu la ci nag mooy lasta abdan lil asmaa al juz'iyya wala lil mazahir al muqayyada bal innama anta al abdu lil lil ismi al kulli al jaami yow yaay jaamu yàlla bi ci mboolem turam yi matale yépp boobu la ab liggéeyam mat kon ci liggéey boobu ñaari feeñ na ci maqaamul ubudiyya muy abdullahi gi ak ak xadimu rasulillahi gi mooy darajati kawniya abdullahi abdullahi xadima abdihi ni abdullahi li ma doon wut ci yàlla mooy mottali ñaari maqaama yi fexe ba maqaamul ubudiyya kenn du ma ci ëpple gannaaw yonte bi alayhi salaatu wasalaam ndax abdullahi fi lxaqiqa laysa illa saxsan waaxida muy yonte bi alayhi salaatu wasalaam ku ñëw xalifaam nga ca tur woowa kon ku ci matalee ni ci sëriñ bi matalee kenn amut te ci liggéey bii la ko matalee xadimu rasul nga xamee ne sëriñ bi wax na ne ci biir ay mbindam ne ni ma koy liggéeyee liggéeyalee am na ci lu feeñ lu ñëpp gis waaye am na ci loo xamee ne ku dul yàlla ak yonent bi xamu ko ak man muy liggéey boo xamee ne tàmbulee na ca yeneen monde yeneen awalim ya awalim ya jiitu yàlla di créer di di di sos adduna bi mu ànd koog moom di ko fa liggéeyal naan ko antal karimu anal xadimu fu ñu nekk rek ca yeneen adduna yaag yeneen pays suñ borom ya yow yaay kafa kawe lay sama liggéey mooy màggal la ak liggéeyal la man ma féete la suuf di la surgawu di la liggéeyal ba bañ egsi ci jamono ji kon li ma waxoon ci njëlbeen gi ne alxidma maqaam ab maqaama la yaakaar naa leer na maqaam bu yàlla ab maqaama boo xamee ne yàlla da ko tànnal benn ci xejjam yi te kenn dootu ko am te kenn dootu ko amati ba faw muy sës rikk ci yonent bi yor léppam di saytu di saytu ab wurmbalam di dugg féppam di ko fa defaral ni nga xamee ne sa mbindaan sa biir kër sa wanag yi bopp moo cay dugg sa mbóoti bopp moo cay dugg manees na ne mbooti yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak diineem ji lañ ca xam ci zaahir ak ci baatin ka ko ca wuutu di ko ca liggéeyal di dugg fépp di defar kooku mooy Sëriñ Tuuba kon xidma maqaam la waaye xidma manhaj la aw yoon wu Sëriñ Tuuba rëdd jaar ca jaarale ca képp ku mu yar wala ku mu defar loolu mooy lil Mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahu lgarra wa inni ahmadu incha allah bu ñëwee ci bu ñuy taarif xidma ak ni ko sëñ Basiiru le yaakaar naa ne manhaj bi sëñ Tuubaa rëdd tool wala sas waar wi mu sasoo ci toolub yonente bi alei salatu wasalaam yoon woowu dana ci leer bu baax a baax incha allah kon lan mooy xidma xidma buñ ko waxee ci làkku arab day jóge ci baat boo xamee ne li muy firi mooy li ab surga di def loolu lay firi mooy liggéeyal sab sanga kon njariñ li jóge ci ki suufee jëm ci ki ko kawe loolu lañ baax loolu boo demee ci lisaanul arab ak ñii firi baat yi ci arab liñ ci wax lépp mënees na koo tënk ci ne mooy li ab surga di defal ab sangam indi na fa lu baree bare waaye mënees na koo tënk ci lool bu dee suuf yi ñoom maanaam moomu lañ jël yokkaat ci mooy li ab surga li ab taalube lay defal ab sëriñam ndax buñ demee ci al adabu suufi baatu xidma dañ koy jëfandikoo bu baax a baax a baax ay Junaydi boo demee risaalul Xuseyri lu baree bari nga fay fekk baatu xidma boo jëloon lu mel ne kii xuutul xulub bu abi taalibin makki mas naa dajale li ci xidma rat mat na ay téeméer nga dellu ci mbooleem maraaji suuf yi kon du baat boo xamee ne ñun rek ñoo koy jëfandikoo waaye foofu niñ koy jëfandikoo mooy dongab tër bi yow pour mu am li muy wut ci ab sëriñam faaw mu ñaqal ko faaw mu sonnal ko bañ nañ ko ba sax toolu àllarba bii ab taalibe di defal ab sëriñam ci maanaam moomu la bala ngaa amal barke da ngay son da ngay liggéeyal sab sëriñ moom nag bu dee ci maanaam làkk bi nit ki day sonal day sonn ngir ab sangam ab sangam di ko jariñ ci alalam wala ci kilifteefam bu dee nag ci baat bu dee ci tasawuf du alal jooy xaar ci sab sëriñ du ndimbal looy xaar waaye ba nafun maanawi wala nafxun ruuxaani fële muqaabila nafxun maddi la fii nag muqaabila manfaatin maanawiyatin ruuxaaniyatin da ngay liggéeyal sëriñ bi ngir mu gërëm la da ngay liggéeyal sëriñ bi ngir mu jox la barke da ngay liggéeyal sëriñ bi ngir mu def ci yow baatin danga ko daan defar rek xolam sedd ci yow xëy suba ne la ñëwal taalal loxo yi ñaanal la nga génn mbooloo mi topp la nga génn loo ñaan mu am koo wax koo jubanti mu jub koo defar mu tegu ci yoon kon mën nañoo dellu ci al al adabu suufi indi ay misaal yu baree baree bari muy indi maanaam moom waaye waxtu wi duñu ko may lan moo wuutalee maanaam moomu ak ñi sëriñ bi indi sëriñ bi ñu dellu ci ay mbindam gis nañ ne dana jëfandikoo adab al al xidma ci ay maanaa yu wuute danañ ci ñëw incha allah waaye bu ñu delloo ci sëriñ Basiiru moo njëkk a indi taarif ci xidma donte ne bindikat yu mujj yi indi nañ ay taarifaat yu baree bari macha allah docteur Khadim Silla fan yi am na téere bu muy génne dajale na ci taarifaat yi ñi ci mujj a bind ci jamono yu mujj yi yépp waaye li ñuy seetluwut mooy taarifu sëñ basiru bi wala taarifaatu sëñ basiru gis naa ñetti barab yu sëñ basiru indee xidma nam ko fa leeralee leeral gu mat sëkk la jàpp naa ne jar nañu bàyyi ko xel lool sëriñ Basiru dafay wax ci sëriñ Tuubaa ne moom ñaar nga ko mën a waxal ne loo ko waxal ci maqaama loola weesu na ko ñaar rek nga ko mën a tënk muy al abdu al xadim abdullahi wa xadimu rasuli laa ilaha illa allah muhammad rasulullah ñaar yooyu rek nga ko mën a tënk beneen foo ko dagg doo ko fekk wala mën nga ko faa fekk waaye ma nga feneen feneen foo ko natt rek weesu na foofa mu ne bu dee ci ñaar yi nag nee na gisut ku ci def lu toll wala lu je lu xaw a jege lim ci def muy al ubudiya ak al xidma mu ne gisut ku taxaw ci aqi ubudiya ci wéetal boroomam ak santu ko ak jaamu ko ca nam gën a selle nam gën a yalle ku ci toll ni ci Sëriñ Tuubaa def mu ne it ci liggéeyal yonente bi alayhi salaatu wasalaam gisul ku ci taxaw taxawaay bu mel noonu boobu muy wax nag liggéey yonente saa salaam da cee leeralaale liggéey boobu xidma bi mu ne gisut ku liggéeyal yonente saa salaam ci nii xidma boobu mooy lan mooy topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam annahu ma qaama bi xaqi al ubudiya lillahi taala bi tawxiidihi wa shukrihi jalla wa ala wa xaqi lxidmati lirrasuli sallallahu alayhi wa sallam ci naan ittibaan wa thanaan wa salaatan alayhi wa ixyaan li sunnatihi wa amalan bilqur'ani wa ikraamihi wal istiqaamati alayhi wal ibaada bihi wa tartiilihi wa tarbiya bil qiyaami bihi wa tarqiya bi tadabburihi wa taqribi ulumihi lil afhaam lii ci ni nee na gisut ku liggéeyal yoon saa salaam ci anam gii gu toll ni ci Sëñ Tuubaa def ci lan mooy ni mu toppee yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni mu doon taggee yonente bi alayhi salaatu wasalaam tagg rek du tagg ay wax rek waaye dafa jël dogu dëelalanteeg borom ci yeesal diine diine nag benn mu doon ay wax ay texte ay théorie yu yu jaamida yoo xamee ne ku koy jàng da naan wax ji rafet na baax na waaye kenn mënu ko dund waaye yonente bi alayhi salaam doon jëmm ji doon jëmmal loolu mu jàngale lépp yàlla ne boo leen ko toppee day da ngeen tegu ci yoon wayen tuti huhu da tëddu sëñ jubaa nag bi mu ñëwee war a dekkalaat liggéey yonente bi alayhi salaam xam ne ne li ci gën mooy fexe ba yonent bi bu mu doon ku mel ne ku faatu ku fi nekkatut nañ mel ne yonent bi mi ngi ci sunu kanam loolu niñ koy amee mooy fexe ba bëgg ko ba bëgg gi ndax yoon saa dafa ne xol am na yaram am na lu ci nekk loo xamee ne bu baaxee lépp baax bu bonee lépp bon te mooy xol mëtooru doomu aadama ku bëgg a defar xol yi ku bëgg a defar jikko yi ku bëgg a defar diine moomal xol yi mu bëggoon sëñ Tuubaa nag mu ne ni ñuy defaree xol yi mooy bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam ku bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba seey ci moom da nga ko roy da nga da nga dund nag loolu nuñ koy defee mooy wane ay jikkoom mooy sanaa kon falsafatu sanaa ak maddu am daahu nabawiyey tagg yonente saa salaam foofu la bëggut rek ñuy wax mbaaxu yonente bu mel ne lu fi jaaroon jàll la ay léeb léeboon lippoon la waaye dañu koy indil ba mel ne ñu ngi koy dundaat di ko gis tàmbalee ko nag ci jëmmi boppam defar boppam ba mel ne yonent bi moo jëmmata ci baax ci neex ci yërmande wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin jikko yim lay wax ci yonent bi alayhi salatu wasalaam yépp moom boo ko gisee moom mooy jëmm yonent saa kon li sëñ Basiru ne ittibaan mooy dafa jikko yi yonent saa salaam mu jëmmal ko ci boppam te defu ko rek ngir baaxal boppam waaye baaxal mbooloo mi laka rujuhi maa jumuhi demul rek wax na ko ca majmoo nee na jàmbaar dëgg du ko ko mucc yow rek waaye jàmbaar mooy ku mucc muccale nee na am na ñuy daw yow ma yafirul maru bi mu koy firi ñoo xam ne dañuy daw ñoom mucc waaye du ñu baale kenn am na ñoo xam dañuy mucc muccaale seenu njaboot am na dañuy mucc muccaale ay aw xeet nee na ñooñ nag ñooy jàmbaar dëgg Sëriñ Tuubaa nag mooy jàmbaar dëgg moo tax mu ne laka rujuu'i maa jumuhi bi xayri juuhi wala xataay moo tax nag na muy muccalee xeetu yoon sallam mooy ci boppam la jël jëmmam def ko muy jëmmi yoon sallam ci roy ko ci dund ko ci bëgg ko ba jëmmam liñ lay wax ci yoon sallam lépp dafa jëmm ci kon jëmmal na ko ci jëmmam waaye mu ñu koy fàttali ci xasidaam yu neex yi ay jësbu ay mawaahibu ay muqaddimaat ay miimiya al amdaahu nabawiya ay di dawaawiin ay amdaax yoo xamee ne mbooti yàlla yi ci nekk waxuluma la rek wane jikkoy yonent bi alayhi salaatu salaam gi mu ciy wan neexte gi ciy nekk ku koy jàng muy hëzzul xulubil xawmi di yëngal di daaneel xol gaa yu baax yi waaye képp ku takkoog moom da nga gis ne yonent bi moo nekk ci biir xasida yi du ay jikkoom waaye leeru yonent saa sallam nekk ci moom mooy képp ku jël sanaa u yii mu doon wax boo takkoog moom tuuti leeru xasida yi dugg ci yow jikko yonent saa sallam nekk ci yow kon ni mu doon dundalee méthode Sëñ Tuubaa ci dundal yeesal diine tajdiid googu madxu ak amdaax ak salawaat yi dañ ci am luñ ci doon liggéey mooy jël jëmmi yoon sansam def ko ci xaside yi ngir taalibe yi jàng ko ba soppiku jikko yoon sansam nekk jom lu yéeme loo xamee ne gëstukat yi seetlu nañ ko mooy ci bi fi tubaab yi nekkee ba ba ñu am indépendance université yeeg kii yu mag yépp seetlu nañ ne jublu ay ay ay marxiste lañu woon ay communiste ay yooyu waaye bi fi xasida yi duggee dañoo gis mu ci diggante su gàttu ñu soppiku tubaabe gi ñu defoon yenn ci ñoom góor ak jigéen dootu jaxasooti kon kuréelu xasida yi ak leer yi ci nekk moo dugg ci biir barabi tubaab yooyu ak université yi ak daara yu mag yi toj ko toj xol yooyu ngir jikko yi yonent bi alayhi salaatu salaam gi ci nekk mooy soppi kon ci dundal gi mu doon dundal topp yonent saa salaam ci la sanaan mooy tagg ko wa salaatan alayhi te loolu lépp mooy roolu xasida yi wa ihyaan li sunnatihi dundal sunnaam fexe ba nii jëmmam doon jëm bi yonent saa salaam nam doon jaamoo yàlla jikko yu rafet ya laxat jaakum ku ko dund gis ko xam ne dundalaat na ko waaye wa amalan bil quran ni mu doon liggéeyal yon san salam it mooy liggéey al liggéeyal alquran liggéeyal yon san salam ci alquran ci dund ci alquran ak dundale dundal ko di ko jëfee wax na ko ci masaalikul jinaan ne booy jàng alquran jàppal ne yàlla mooy wax ak yow luñ ci tudd ci jikko ju baax xamal ne waxuñ waxuñu kenn yow la ñuy waxal fexeel jikko jooju nga jëmmal ko ci sa jëmm luñ ciy tere wala jikko juñ ci ŋàññi fexeel xamal ne yàlla waxu ko kenn yow lay waxal fexeel jikko jooju nga sori ko Sëriñ Tuubaa loolu la fexe woon ni yoon sansaram doonoon quraanan yamshi noonu la doonoon def waaye wa ikraamihi mooy teral alquran incha allah dinañ ci ñëw ci biir wal istiqaamati alayhi mooy sax ci alquran foo ko fu mu toll mi ngi tudd yàlla mi ngi jàng alquran ma ngay naafile ma ngi koy dund ma ngi koy dundule ma ngi koy bind ma ngi koy bindulu ma ngi cay yar nit ña wal ibadatu bihi di jaamoo yàlla ci alquran wa tartiilihi di tudd di jàng alquran fu mu toll wa tarbiyatu bihi di ci yar ay nitam wa tarqiya di ci leen tar di leen tarqa ci alquran ñu ngi leen ci tarqiya ci bi tadabburihi gis nañ jataayam yi tomb yi mu daan def ni mu daan firee alquran ni mu daan waxee alquran ci jataayam yépp wa taqribi ulumihi lil afham fexe xam-xam yi ci alquran mu koy jël di ko def ci nit ñi contexte bi mu ne wa kaana laa yasaalu lisaanuhu ratban bihi nee na fu mu masa toll aw làmmiñam mi ngi tooy xipp ak alquran mu ne nag gisut ku taxaw taxawaay boobu ci liggéeyal yoon saa salaam ni sëñ tubaa defee li ni ci sëñ tubaa taxawee kon texte boobu li muy gàtt-gàtt yaakaar naa ne wan nañu lan mooy xidma ndax dafa ne gisut ku ko liggéeyale ci nii ci nii ci nii kon liggéeyal yoon saa salaam bi sëñ tubaa doon def mooy liggéeyal saa salaam ci jëmmam ji liggéeyal ko ci diinam ji liggéeyal ko ci téeram bi liggéeyal ko ci xeetam bi ma des ko tënk ci tënk ci noonu jëmmam ji ak sunnaam si ak téeram bi ak xeet bi sëñ Basiir waxaat ne fa awalu xidmatihi lahu sallallahu alayhi wa sallam ittibaau sunnatihi summa nasru fadailihi wa tanwihu bi kitaabillahi alladi jaa bihi wal qiyaamu bihi tilaawatan wa ihyaan ka saairi sunanihi mu ne sëñ Tuubaa liggéey bi njëkk ci liggéey bi mu doon liggéey yor yonante bi alayhi salaatu wasalaam mooy topp sunnaam tas mbaaxu yonante saa salaam màggal téeréem bi dund ko ak di ko dundal di ko jàng ak wane yoon wi sa yoon yoon wi sa sallallahu alayhi wa sallam jaaroon mu waxaat tamit ci beneen texte mu ne wa awalul xidmati xidami lahu alayhi salatu wasalaam iqamatu sunnatihi awalan wa axiran baad al faraid fi anwaahi al qurubat wa zikrihi wa zikri manaqibihi bil madxi wa thanaai wa salaati alayhi sallallahu alayhi wa sallam kon mooy li mu waxoon ci bu njëkk bi rek kon sëriñ Basiiru buñ ci delloo moom wan nañu dëgg dëgg xidma mooy jël léppam jox yonante bi alayhi salaatu wasalaam fexe jëmmam ji liggéeyal ko ci liggéeyal ko ci sunnaam liggéeyal ko ci umma bi liggéeyal ko ci alquran liggéeyal ko ci xeetam bi bu ñu delloo ci mindi Serigne Touba danañ gis ne day jëfandikoo alxidma ci maanaa yu bari ak ci ay siyaaq yu wuute gis nañ léeg-léegi sëriñ bi di ko jëfandikoo ci maanaam moo xamee ne moo ko ibaada man loolu laa ci dégg donte ne am na ci bindkat yi ak gëstukat yi ñoo xamee ne dañuy teqale bu baax a baax diggante al ibaada ak xidma waaye man ci sama gëstu li ma texte yi sëriñ bi yi ma gis gis naa ci foo xamee ne moom ak ci texte suufi yi ak ci texte sëñ Basiiru yoo xamee ne moom ibaada rek la fi mën a taxawe ma joxe ci misaal fu sëriñ bi waxee ne mu ne yàlla dafa bind yaram ngir jaam bi di ko ci liggéeyal lu bari kon foofu liggéeyal boobu mu tawee su lu dul jaam jaam ko wa xalaqal badana xiinama fatar li kasratil xidmati fi ma qad umir yàlla dafa bi muy bind yaram dafa bind làmmeñ ngir dara xol ngir dara lam yaram nag ngir mu ci liggéeyal yàlla ci lan ci lim ko digal fii maa xat umir am na feneen foo xam ne sëñ bi xidma maanaa ibaada moom rek laa ji dégg man muy waxasinil xidmata aydan bittibaa ala dawaami wa bi kasril ittibaa na nga rafetal sab liggéey ni ngay jaamoo sa borom ci nangoo topp sunna foo toll ak nangoo jaamu sa borom foofu ñaari texte yooyu sëñ Basiiru it bu ñu demee ci mbindam luy tegtale ne xidma foofu mook ibaada ndax dafa ne waxat xaala sallallahu alayhi wa sallam waxat warimat xadamaahu min tuuli alqiyaam afala akunu abdan shakura wa xaala alayhi salaatu wa salaam wa ju'ilat qurratu ayni fi salaat sëñ Basiiru teg ci ne wa hiya itlaafu almuhjati fil xidmati lil mawla azza wa jal julli yon san salam dafa ne sama mbégte yàlla ci ci julli la ko def sëñ Basiru ne julli mooy nga rey sa bakkan ci liggéeyal sa borom kon julli lay firi ne mooy xidma moom sëñ Basiru wane ne mooy sax liggéey bi gën a kaw kawe ci liggéeyal sa borom sëñ Basiiru it di wax ne ne ixtaara alxidmata li rabbihi bil ibadati wa shukri sëñ Tuubaa yoon wi mu tànn liggéeyal ci boromam mooy xidmaal boromam liggéeyal borom ci nan ci jaamu ko la wax ak sant ko mu ne nag dafa nangoo liggéeyal boromam yàlla jël lépp ne ko na liggéeyal sëñ Tuubaa jël adduna ak lulul adduna ne ko toppal sëñ Tuubaa di ko liggéeyal fa axdama mawlaahu al dunya wa saxarahu wa saxaraha li masaalihi kon gis nañ ne foofu xidma sëriñ bi in am na yeneen yu barab yu bari waxaat na fi waxay waxaydu dunubi yamnahu min al mashi ila taati llahi wal musaaraati ila xidmatihi am na ci ñaanam yi fu muy wax naan allahuma mun na alay bi iqbaali alayka wa iqdaayi an gayrika wa insaati ilayka wal fahmi anka wa basiratan fi amrik wa nafaadan fi xidmatik yooyu yëpp am na ci silkul jawaahir fu muy waxee naan mag ñi bu ñu masaana am ba dañoo am ñeen ñeen fukki at seen dund gépp ci sàkku xam-xam lañ koy def bu ñu amee ñeen fukki at nag ñu def ko ci xidma xidmatul mawla loolu am na ci mbindi sëriñ bi fu xidma di firee liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu moo ci ëpp nag donte ne dañ ñëw léegi-léegi ci jaamu yàlla loolu buñ ci doon xool bayit yii firi liggéeyee de temps salam mën nañ ci indi ay téeméeri téeméeri téeméer jéem nañ koo dajale nag mën nañ ci indi misaal mu ne diiniya xidmatu nabil maqbuli bi maa li yaxtaara maa sabili man sama diine mooy liggéeyee de temps salam méthode manhaj bi ma jël ci àdduna mooy jariñu jariñ liggéeyee leen san salam xidmatu xayril aalamina askatat man nazauni wa idaaya sakatat ci liggéeyee leen san salam ci laa noté samay noon ak képp kuy dagg santeeg man ak yeneen wax yu baree baree bari yoo xamee ne waxtu yi duñu may ñu sori ci buñ delooyee ci mbindi sëriñ bi danañ gis ne dana jëfandikoo xidma ci liggéeyal alquran bi xidmatil kitaabi wal xadiisi yathbutu laa bi dahabin mawrusi ci liggéeyal alquran ak sunna ku may dond ci nga may donde waxaat na ne alhamdulillahi alladi axrajani min yadi iblis alkasir alfitani ila alhuda bi xidmati alkitaabi wa xidmati almuxtaari di sawaabi maa ngi sant yàlla mi ma génne ci loxoy iblis dugal ma ci loxoy liggéeyal yonte bi alisa digal ma ci njub ci liggéeyal alquran kon foofu sëñ bi dina ko jëfandikoo ci liggéeyal alquran loo alayya xidmatul kitaabi bila tazalzulin wala itaabi loolu lépp ci xidmatul kitaab la foofu nag mën nañ ci misaal ñi mu daan liggéeyalee yonent bi wala ni mu daan liggéeyal alquran ci ni mu leen liggéeyal yan sansam ci alquran sëñ Basiru in na ci lu baree baree baree bare wax na ne musta gis ku liggéeyal alquran ni sëñ Tuubaa doon liggéeyale alquran mu ne bu kenn defoon lim ci def kon histoire wax ñu ko nee na ku ma mën a wan koo xamee ne dundam gépp guddi ak bëccëg du ci noppalu fu mu toll mi ngi jàng alquran di ko jàngalu di ko setantal di ci soññee di ko di ci woote ku ma mën a wan koo xam ne dundam gépp dafa wut ay nit lam lam def seen tarbiya lim leen di yare mooy liggéeyal alquran ci jàng ko ak jàngale ko ak lu baree baree bari lu mu ci wax ci liggéeyal alxuraan xam naa waxtu yi duñu may ñu sori ci ñu gisaat tamit sëriñ bii di jëfandikoo xidma ci liggéeyal gaa yu baax yi liggéeyal awliyaa yi ak nit yàlla yi sëriñ bi ci mbindam na ci feeñ boo demee ci xuqal buka bi muy wax tuuba nit yàlla yi mu indi leen ba noppi daan ne tuuba li abdin muridin sadiqin lahumu bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyaati nit yàlla yi ki texee mooy ki ki ki yàlla dimbali ba nga leen di liggéeyal di leen liggéeyal wala nga leen di joxal saw ñaq wala nga bëgg leen kon foofu sëñ bi dina jëfandikoo xidma it ci liggéeyal gaa yu baax yi te buñ jaloo ci mi tamit ne awaluha alxidmatu li cheikh salih nasih yow ci baaxin qad ata minhun nasih bi muy wax aadaab yi murit bi mën a sóoboo ba mën a àgg ci yàlla lim ci jiital mooy liggéeyal sëriñ bu mat sëriñ ci yoon yu gën a baax pour mën a àggale nit ki ci yàlla la sëriñ am na fu sëriñ bi waxee ne barakatun bi nay li xayri ni'ma tunsil muridina ana al xidma yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma baraka boo xamee ne dana ma may xéewal gi gën xéewal goo xamee ne murid yi ma doon liggéeyal coono buñ masa jànkoonteel bu xéewal yooyu ñëwee ci ñoom dana tax ñu fàtte ko sëñ bi jël bayit woow firil ko boppam daa di ne baraka baagi mooy bay bayxul fudul zahiran wa batinan raagi ba cër yépp mu wax ko lam ca teg nag mooy ku liggéeyal gaa yu baax yi baraka nga ciy jëlee mu ne barke boobu nag wa fuhima min hada al maana an al barakata la tu'ta bil i'ara wala bil hiba wala tunaalu bis sariqa innama tunaalu bis thaman loolu mooy xidma wa imtisaalul muridi amra cheikhi mooy xid liggéeyal ko rek bi mulazamati هذه الأشياء وهو عناء الخدمة المشار المنسي برحمة منه وردوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم mu ne boo liggéeyalee gaa yi baax yi la nga ciy jëlee mooy barke barke boobu nag kenn mënu la koo may sëñ bi lu mu la bëgg bëgg mënu la mënu laa jox barke boobu loo yeewu yeewu loo muus muus mënoo fexe ba ndax sëñ bi ba am ba am ci moom barke loo ko jege jege jege loo doon rakkam doomam sëtam loo man di doon te jaayante woo ñaqal ko loolu ma waxoon sëñ Fallou rek li fi nekk duma duma bàyyi kenn duma nijaay kenn duma nam ko waxee ba sëñ Fallou jaayante fa ne ko bontu biatu bu nu watiya bil irada kon lam ja lëkkum li kay li kay ahva bi xarqil aada barke boobee la doon ñaq di ko wuti moom sëñ Fallou ci liggéeyal sëriñ bi barke boobu la sëñ bi wax ne nag deesu ko abale deesu ko maye deesu ko sar saraxe deesu ko sàcc kenn mënu ko sàcc sax kenn mënut a ndax sëñ bi am ko ña joxe ñaq wi rek dees koy jënd la nga koy jëndee nag nee na mooy xidma ci topp sëriñ bi topp ndigalam tënku ci lim la wax ci yim fi tuddoon léegi loolu nag nee na mooy xanaawul xidma liggéeyal bu metti la xidma la bu metti waaye ci sax ci ci ngay mën a amee barke waaye barke bu ñëwee nag loo nekkoon nee na ci ay mettit ak i coona barke ba dana la ko fàttaloo aataytani mal qalba ansa kulla ma mada min adur maxatoo zulama loolu la ko sëñ Tuubaa wax sëñ Tuubaa nee na barke boobu bu ñëwee coono boo amoon da nga ko fàtte ndax barke bi day tàmbalee adduna waaye xajul adduna day wéy ba àllaaxira rek loolu mooy laaya wa yàlla waxoon ne mooy ngërëmul yàlla te suratul tawba mu ne yubashirum bi rabbuhum bi rahmatin minhu la wax wa ridwanin wa jannatin lahum fiha naimun muqim kon barke ngërëm yërmande yàlla ajjana yi adduna ak alaxira li la ko mën a may mooy liggéeyal gaa yu baax yooyu loolu kon gis nañ ne sëñ bi am na yeneen mbind yu baree bari yoo fi indi yoo xamee ne lépp fu ko sëñ bi jëfandikoo sëñ bi sax indi na ni ko buñ delloo ci ni ko murid yi daan liggéeyale ni ko ba ci yéefar yi sax daan liggéeyale ngir bëgg barke boobu ba ci jazaw sakur boo ko ñu yëree ak mbind yi mu bind waraxaat yooyu mu def ci géej gi wane ci tubaab yi niñ ko doon liggéeyee docteur yaag niñ ko doon yanale kees gi nee na dañ ko daan liggéeyal xidmatal muridin nee ni murid yi daan li di may liggéeyal nañ ma doon liggéeyale ci biir gaal gi rek biñ ko ci dugalee nee na tubaab docteur ba ñëw na ma wax ne ma yow dañ laa tooñ wan ne ko dama laa bëgg dama laa bëgg di liggéeyal liñ la def teguñ ko fenn nee na ab waxambaanew tubaab boo xamee ne ca noobul ya gën a foor ca ca tubaab yàlla ji futtiku yàlla def ci xolam bëgg ma mu may liggéeyal ni murid yi di di ma liggéeyal la ba ma ko laajee lu tax mu ne dama laa bëgg rek ba may teqali koog moom ma laaj ko mu ne ma naa ko bindal ab téere sëñ bi nee na téere ba sax mujjuma ko bindal ngir ormal arafa alquran yi ab yéefar di ko di ko di ko jox ab yéefar waaye li nga xamee ne xam nga kooke mooy mooy kantay ci àdduna ku mu mën di doon waaye lu jaral sëñ bi di bind ba koy tudd nii si ku mëne askan wu mu bokk ñooña taraanga du ak xéewal duñ taxale ko moom moom sëñ Basiru ni mu doon liggéeyal yàlla rek ci géej gi loolu la ko yàlla tàggatalee ñu ko doon liggéeyal wan na ne ci ci Lambaréné ñu ko fa ku tudd Dukkure boo xamee ne ab soldaar bu fa nekkoon la rek nekkoon brigadier waaye gis sëñ bi rek bëgg ko di ko liggéeyal ba mujj sax dafa démissionné ngir bëgg a toog ak sëñ bi di ko liggéeyal kon loolu mooy maye sëñ bi it gis nañ fu muy jëfandikoo xidma ci liggéeyal boroom xam-xam yi ak waajur ak saalihin ñu ngi naan wa gaayata tawqiiri waqir shayqaka waj'alhu sayyidan lahu hab xayraka sab sëriñ da nga ko wekk dayob wekk daf ko sab sang loo am ci lu baax jox ko dee ko fajal ay aajoom di ko jox li nga am di ko liggéeyal loolu mi ngi ci naajo waxaat na ne wa jaa mimma yanfa'u shaxs bila nihayatin ta'limu ilmin qubila wa zul xiyaar al ulama wa saalihin waxdimu lillahi jalla kulla hin kon gis nañ foofu it sëñ bi dina ko jëfandikoo ci liggéeyal gaa yu baax yi du ci liggéeyal san salam rek waaye liggéeyal gaa yu baax yi ci liggéeyal san salam la sëñ bi dana ko jëfandikoo damay tënk rek ndax waxtu wi xam naa ne fi mu ne ni du ñu may ñu dugg ci yu baree bari ci liggéeyal sa njaboot ak say waajur sëñ Basiiru indil ñu ci ay misaal yu bari ni mu nekkoon ak waajuram di ko liggéeyal sëñ bi wax ci ne wa adabul yadayni an tabsutuma lil birri wal ihsani wa xidmati al ixwan wa an la tasta'ina bihima ala al xataaya wa al asyan wa adabul rijlayni bu muy wax te tàgg nit ki ni mu war a tegginoo ci lu ne ba ci ay loxoom mu ne da cee war di liggéeyal ay mbokkam ak ay jegeñaaleem ci noonu la ko toppee ba egsi ci liggéeyal mindeef yépp liggéeyal jullit yépp wa axrinaa ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma loolu nag doonut ay wax kese sëñ Basiiru indi na ni sëriñ Tuubaa daan liggéeyalee xeetu yéen saa salam indi na ci lu baree bari wax na ne amma muaana wa aawanatu al birri wa taqwa فناهيك بها فإنه لا يمر بعمل إلا ويده معه معك فيه معك فيه sëñ bi ni mu daan dimbalee nit ñi kenn mës a gis lu toll noonu bu la masaana dig wala sas ab liggéey mooy njëkk a jël alalam jox la ca mu ne taalibi bu mës a ñëw bàyyi waajuram bu ñëwee li mu koy digal mooy na delluwaat ca waajur ya ba lu dul taalibi bi da koo wax ne am na lay wu mat sëkk am na ndigalu waajuram mu doo koo bàyyi mu toog mu ne bu waree jàng da koy yabal ca fa ñuy jànge ngir mu jàngal ko bu dee ku mokkal alxuraan mu liggéey loo ko ci alxuraan ci lamman ci di ko jàng wala di ko bind wala di ko jàngalee lépp lu war ci moom mu jox ko ko bu dee ku ñëw di tar bi yow mën a liggéey mu yóbbu ko ci liggéey bi mu wax ku ne yoon wi mu la rëddal dooro nag wax ci ñi ñàkk mooy sëñ bi nim daan liggéeyalee ñi ñàkk mu ne ñi ñàkk alfuqara wal masakin ak ñi amut baay ak ñi seen borom kër dem sëriñ bi moo nekkoon seen baay bi leen di yërëm sëñ bi moo nekkoon seen ndey ci yërmande nee na foo ko fekk ma nga dalal ay junniy junni kenn du leen dundal ku dul moom ñoom jàmm juñ añ boo leen gisee ña nga am jàmm nekk ci dund gu teey mel ne ñu ami milliard wala ami million te seen lañuy dunde lépp ci sëriñ bi lay jóge te li tax mu dajale leen yërëm leen rek ak dimbale leen ngir ñu mën a jaamu seen boroom dajaloo ngir dajaloo di julli wala zikkar wala sant yàlla fu mu leen dajalee it di leen waar di leen fàttali yonte bi alayhi salaatu wasalaam sëñ Basiru indi na ci lu baree baree bari sëriñ bi ni mu daan dimbalee nit ñi ni mu daan joxe alalam ni mu daan waxtu wi du ñu may ñu dugg ci lépp beneen wàll goo xam ne it gis nañ ne sëriñ bi dina fi jëfandikoo xidma mooy imaaratul ardi muy dem ca marché ba ngir liggéey sëñ bi wax na ko liggéeyal buur yi gis nañ fu mu koy waxee zahadani xidmatuhul mardiya an xidmatil muluki aw fi xidmatil muluki an xidmatil muluki lil hadiya liggéey ngir di tonowu liggéey buur ñu lay fay par weer dem ca marché ba di jaay am na fu muy waxee ne mi ngi joxe misaal lay joxe misaal ci ku digal say surga ñu dugg ci tool bi di liggéey nga di leen bayloo toog fële di leen seet ñenn ña doon liggéey ñenn ña bañ a liggéey mu ne bu waxtu xéewlu jotee kilifa gi bu ñëwee teg teg ndab la ku doon liggéey da nga xam ndax bu xéewlu jotee da nga war a sañ a liggéey da nga war a xéewlu wala déet kon foofu liggéey ci tool bi sax sëñ bi foofu xidma la ko tuddee foofu te lii mbindam la kon ci gàttal gis nañ ne sëriñ bi dana jëfandikoo xidma ci anam yu baree bare dana ko jëfandikoo ci liggéeyal yàlla liggéeyal yoon san salam liggéeyal borom xam-xam yi liggéeyal awliyaaw yi liggéeyal sa njaboot liggéeyal sam réew defar sa yooyu yëpp gis nañ ne sëriñ bi dana ko jëfandikoo ci mbindu boppam nag ni mu doon liggéey yoon san salam yaakaar naa ne sëñ Basiru leeral na ko baax a baax du jar ñu duggaat bi waaye moom ci ay joxañam wan nañu ñun taalibe yi nan lañ ko war a liggéeyale moom sëriñ bi ndax ni mu doon liggéeyale yoon saa salaam rek donte ne mënuñoo def lu mel noonu waaye rëddal nañu yoon kon taalibe bi sëriñ bi bu mu bëggee am maqaama muy gën a kawe ci yàlla ci liggéeyal ko la ame la ko amee wax nañu it ne yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu anaawul xidma boobu it barke boobu mu ne mënee si koo sàcc mënee si koo saraxe mënee si koo maye ci liggéey lañ ko amee kon sëñ bi wan wan nañu aw yoon nee nañ la gën a kawe ci yàlla boo ko bëggee jaarale ko ci liggéeyal ma li gën a kawe ci ay cër ci yàlla muy muy baraka boobu ak anaawul xidma ak rahmatun wa ridwan wa ridwan mi lay akbar foo ko mën a amee ci anaawul xidma kon wan nañu aw yoon wan nañu tamit ni ñuy liggéeyale yoon san salam sëñ bi li muy liggéeyale yoon san salam bokk na ci xalimaam bokk na ci jëmmam moo ko wax ci mbindam nee na yàlla moo ma tànn ci samay askan moo ma ci seppee ak samay jege ñaale ak samay xamee ak ñi ma sori def ma may liggéeyal yoon san salam bi gën ma war koo liggéeyal ci sama làmmiñ ci sama xalima ci sama yaram ak ci sama xol foofu la waxee ne liggéey bi ma koy liggéeyal ci sama xol nag keneen ku dul yàlla xamu ko kon yooyu mu tudd ne da ciy liggéeyal yoon salaam yépp yaakaar naa wan nañu aw yoon wu ñu ko waroon liggéeyal kon murit bi mu wax tamit ne tuuba texe gannaaw bi ñu waxee anaawul xidma baraka boobu mu waxaat tuuba lahum tuuba bi tuuba li abdil muridin bi xidma kon wan nañu maqaama yi gën a kawe la gën a baax ci liggéeyal ko lañ ko mën a amee wan nañu tamit nim doon doxee diggante meeg yoon saa salaam ne ku ma bëgg a liggéeyal donte mënoo àgg ci ni ma doon def ak di ma diggante saa salaam man ngaa jaar fii waaye bindal nañu nu ñu liggéeyale xeet yépp buñ demee ci masaliku jinaan ba mu buntu sadaqa ak infaq mu ne yowmal xiyaam bu ñu wooyee jaam yi ëllëg teg siraat ñépp tiit jaaxle yàlla day woo ne ana ña doon liggéeyal jullit yi kon war na ñëw yoon war nañu maqaama yi gën a kawe maa ngi ko amee ci xidma yéen it boo leen ko bëggee fay nga te liit yowmal xiyaam ñi doon liggéeyal jullit yi ñoo ko am waxut rek liggéeyal ko moom koo liggéeyal koo jariñ ci mbindeef yi rek moom nga liggéeyal moom Sëñ Tuubaa boo ko yéenee ba ci yéefar bi sax boo ko jariñee te jublu ci liggéeyal Sëñ Tuubaa ci anaawal xidma barakatu boobu da ci dugal kon ibbil nañu waar wu yaatu wuñ mën a amee ajjana waar wu yaatu wuñ mën a amee tuuba waar wu yaatu wuñ mën a amee rahma ak ridwan ak baraka yépp ay ay waxam la baraka rahma ridwan ak jannatin léegi kon ñoo ci des mu waxaat ne wa axrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan warxama moom ci jëmmi boppam mooy ñaan yàlla doon kiy liggéeyal waxuma yont bi waaye jullit yépp na leen liggéeyal ñun nag ñoo ko war a wutu ci liggéey boobu li ci jiitu ci ñun taalibe yi ni ñuy liggéeyal Sëriñ Tuubaa mooy liggéeyal ko ci kilifa suñ kilifa yi diine yi te wax nañu ko mooy xidmatul ulama wa saalihin fu sëñ bi wootee ndax lima yuhyikum istajibu lillahi wala rasuli iza da'akum lima yuhyikum li ñuy woo luy dundal diine la kon fi ñuy njëkk liggéeyal sëriñ bi mooy ci sunu sëriñ si li ñuy woo ci yàlla jamono jii Cheikh Muntaxa yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral mi ngi ñuy woo ci yàlla li a'la'i kalimatillahi al-ulya la ko wax mooy daara ji daari sëriñ Tuubaa ji buñ ci kenn man ci sunu alal sunu xam-xam sunu doole sunu yéene lu ñu am nañ ko ci def li ñuy liggéeyal sëriñ bi mën naa dugg ci anam yu baree baree bare dale ko ci xalifa bi ba ci murit bi gën a tuuti boroom alal fa muy liggéeyal sëriñ bi mooy ci alalam boroom xam-xam ca xam-xam ba lay liggéeyal sëriñ bi boroom man-man boroom kàttan ca fa la yàlla ibbilee li yunfiq du saatin min saati ku yàlla ibbil buntu foofa nga koy liggéeyal kon sëriñ bi wan nañu fi ñu war a jaar nañ ca war a xëree ci liggéey bi mooy moom ni mu doon jaar rek buntu yi nag buñ demee ci masaalikul jinaan buntu sadaqa buntu bu ne sëriñ bi wax na ne nit ki mën na faa amee yàlla ci noo jariñee mbindeef noo ko takkalee aw aw aw dàllam noo ko dimbalee mu yéeg ci daaba noo imaatatul ada ani tariq luy lore nga gindiku ci aw yoon lépp loo mën a jariñee nit kon jàpp naa ne bu ñu xamoon dëgg dëgg xidma yaakaar naa ne mbootaay ak yi taxaw ci àdduna jamono yi di dimbale nit ñi yaakaar naa murid yi ci war a jiitu waaye alhamdulilah tey murid yi ci dégg xidma dem nañ ba ay daayira sosu ci di taxawal xidma boobu li ci gën a misaal miñ ci mu ci mujj feeñ mooy waa Tuubaa ci kanam loolu principe bu mabda'u xidma bii Sëñ Tuubaa woo lañ nos woo ci ñëpp tey ñi ngi daayira yi am na ñu taxawal ay hôpital gis nañ ko ci xidma lañ ko defee daayira yu tabax ay morgue daayira yu indi leeral mbedd mi daay yu fi def ay ay ay ay làmp daayira yuy defar ab dëkk daayira yuy tabax ay jàngukaay gis nañ borom alal yi niñ def dajaloo def daayira ci université bi lépp luy aju ci alxuraan ñoo koy def kon sëñ Tuubaa li mu man mooy wan ñu aw yoon ñun nag nañ koy pratiquer amul fu mu yem ba ci politique sax politique ni ñuy politiquer principe bu wala mabdaul xidma parti yu taxaw jàngat ko génne ci nu ñuy tege programme liggéeyal sëñ Tuubaa wala liggéeyal xeet wi liggéeyal muslimin liggéeyal xeet wi teg ko ci principe bu xidma lépp sëñ Tuubaa day delluwaat ci njàngaleem sëñ Tuubaa kon domaine bu yaatoo yaatu la manees na ko jëfandikoo ci wàllug yar wàllug éducation wàllug social gi manees na ko jëfandikoo ci politique comme ni ma ko leerale manees na ko jëfandikoo ci wàllug culture ak domaine yu baree baree bare kon ñun murid yi ñoo des ci lii ñu Sëñ Tuubaa indil muy nangoo dee ngir ci yoonu yàlla joxe sa lépp ngir yàlla def sa lépp njariñ ngir yàlla ak yonent bi loolu la sëñ bi man joxoñ ñun nag ñoo war a fexe lu jamono laaj fu jamono toll ñu nose suñ bopp ba li àdduna di def ñu koy def bay def lu ko gën te teg ko ci njàngaleem sëñ bi te yaakaar naa ne association ak mbootaay yi xeetlee yi wàllu jirim yi yi wàllu néew gi doole yi ñiy former nit ñi ci liggéey yooyu yépp tey ay daayira yu murid la war a doon ndax buñ jëfandikoo baatu xidma bi ci jamono ju bees gii li mu laaj yàpp naa ne foofu la jëm kon yàlla yàlla defal ñu xam njàngalem sëriñ bi ba man cee jariñu man cee jariñe man cee ballulu ba man koo dëppaleeg jamono ba yaakaar naa ne buñ koo defee nañ ko war a defee tubaab yi ñooy ñëw abbuñu ko chinois yi anglais yi balaa africain yi ñëw defar ci seen réew defar ci boobaa ñun ba moytu sax ñu ñun dañu koy jëgaani kon buñ nangu kenn jiituñu ci na sëñ Tuubaa waxoon ci alxuraan ne ballu ballu ci lu la neex del ballu ballu lu ci alxuraan maanaam mu la soob ndax attan na ko waaye njàngalem Sëriñ Tuubaa xidma li ci nekk bu ko waxtu yi mate woon bañ génne ko dëgg-dëgg yaakaar naa ne luy defar adduna mi ngi ci xidma luy defar diine mi ngi ci xidma luy defar am réew mi ngi ci xidma luy defar ab dëkk mi ngi ci xidma gis nañ daayira set setal yeeg di yépp ci xidma la loolu muy defar ab dëkk luy defar ab mairie luy defar ab quartier luy defar ab dëkk luy defar am réew waaye luy defar adduna lépp Sëñ Tuubaa lëmmal nañu ko ci xidma mu des nag ñun taalibe yi ñu exploité ko génne ko toj ko ba ñëpp mën cee jariñu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu